Eh, man di may rafetlu fii ci koñ bi mooy ñoom li ñuy wax nee nañu souvent dañ leen di fàtte e donc ñoom dañ jël seen bopp donc il faudrait que ñun ñi nga xam ne ñu ngi yëngu en commençant par le maire ak ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi defar Médina di ci jàpp nañu bañi nañu bàyyi xel ci zone bi parce que zone bi koñ bi particulièrement dafa difficile parce que dafay tooy tout le temps ba gars di ko woowee koñ bu tooy et eh, maintenant dama leen di féliciter ci initiative bi ñu jël donc man masque laa indi woon jox leen ko euh, parce que booy tourner biir Médina da ngay gis ni effort de communication bi war na gën a yokku et puis joxe masque yi war na gën a bari parce que moom mooy solution bi ñu recommandé am na ñoo xam ne yoruñu ko il faut donc que ñu dimbali leen donc on leur a remis un lot de masques pour ñu bokk ak gars yi waa koñ bi et puis il y a des initiatives wax nañ ko keroog. après la rue 37. Il y a d'autres initiatives sur toute la Médina avec 20 25 000 masques pour fête ñun mais vraiment dama leen di féliciter ci initiative bi ñu jël wax naa leen ko léegi ñu naan affaire bi du toog rek di ñaxtu jóg la aussi jël sa responsabilité defar sa koñ defar sa gox et heure bu ñu woowee ci ay initiative bu ñu ñëwee nañ ci jàpp ci teewaay jàpp ci ci tuuti comme bi ñu yàlla may et puis teew ci aussi ci li ñu yàlla may ñu xam ko tuuti ci ni ñu war a doxalee. donc di leen féliciter di exhorter jeune Médina yi ñu jël exemple ci li fi am tey 41 43 li am bërki démb 37 et li am un peu partout dans la commune euh, et je pense que c'est une euh, ay signaux yu positif la pour wan nañu ni gars yi bu ñu jógee mën nañu def li ñu war a def xam nañu li ñu moom dinañ koy toppatoo te nii la ñuy toppatooyee li nga moom mooy toppatoo fi nga dëkk ba pare. Thank you.